mbokku jullit yu tedd yi gannaaw bu nu santaate yàlla bu baax di ko kañ di ko bakk du julli ci sang bi muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel fa tabaarakallahu ci weer wu barkel wi di leen ci baalu xaqit bu baax di leen baalit xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ko ñaan lépp lu ñu góor góorlu mu néew mu bari ci topp ko yàlla nañu ko boole nangul di ko ñaan bépp rëcci rëcci bu ñu yëg ak bu ñu yëgut bu ñu tey ak bu ñu teyut yàlla ñu boole jéggal ci barke sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dikkaat ak yéen ci seen émission bu ñu tuddee albayaan di continuer ak yéen it fa tabaarakallahu ci waxtaanee suñu soppe bi ci waxtaane suñu sang bi muy yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne dafa am ay xasaais yuñ bëgg a dugg tey ci moom xasaais nag mooy ay jagle yoo xam ne yàlla jagleel na ko yenent bi ku dul yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yii la jagle amuloo ko mu mel ni imaamu siyuti dafa wax ci benn téeréem bu ñuy wax xasaaisul kubra mu ne maa utiya nabi mucjizatan wala fazila ila wali nabiyina muhammad salallahu alayhi wa sallam nadiruha aw acdamu minha nee na amul benn mucjiza bu yàlla di jox yenent lu dul suñu yenent bi salallahu alayhi wa sallam niroole na ak ñoom ci mucjiza yooyu wala sax moom mu gën leen a màgg kon su ko defee xasaa is bu ko déggee mooy ay jagle yoo xamante ne ku nekk am na jagle bu la yàlla may bu mayul sa morom ku nekk am na jagle bu la yàlla may bu mayul sa morom léegoo léegi gis ñaar ñu niroo jagle waaye yonent yàlla Muhammad jagle yu ko yàlla subhanahu wa taala defal mboolem cent vingt quatre mille yi amul kenn ku ci am jagle ci ñoom comme jagle yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na jagle bu njëkk bi nga xam ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam anna allaha araahu jibril alayhi salaam fi suratihi alxaqiqa yàlla wan na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril ci melo bi nga xamante ne mooy meloog dëggam nga xamante ne melokaanu jibril boobu la xeneen amul benn mbindeef mu ko attan kudul yenent bi keneen kum mën a doon dang da nga cey jëlee musiba wala da nga cey jëlee jafe kon jibril pour mu ñëw ci mbindeef ci yenent yeneen yi moom day soppi melokaanam ba nga xam ne température tàngoor bi bu ñëwee danga ko attan yow waaye yàlla subhanahu wa taala wan na yàlla muhammad melokaani jibril dëgg dëgg dëgg bokk na ci xasaa is yi mooy yenent bi salallahu alayhi wa sallam mooy suqa sadri mooy yàlla subhanahu wa taala lumbu lumbu lumbu bu nekk ci xolu doomu aadama nga xam ne moo koy def loo yenn yi moo koy wax loo yenn yi te muy yu di te muy yoo xamante ne macha allah su ko defee kon yenent bi salallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni jibril mu xotti dënnam génne xolam raxas ko ba nga xam ne ayib yooyee muy jikko yu suufe ci doomu aadama yonent yàlla muhammad mucc na ci kon xasaa is boobu yonent yàlla muhammad rek la ko yàlla defal ku dul moom yàlla jagle loola ko bu ca toppoo ci jagle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla woyofal na mbugal ci baayam bu ñuy wax aba talib ngir barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xasaa is yi mooy rixlatul isra wal mi'raj mooy yàlla rañaan gum ko rañaanee jëlee ko ci suuf yóbbu ko ci xadaram bu tedd bu màgg ba bokk na ca xasaa'is yi mooy jaglint yàlla muhammad mooy jiite gu mu jiite julli ci mboolem nawle yenentum mi mooy cent vingt quatre mille prophètes nga xamante ne jiite na leen ñaari rakka ci foofu fa tabarakallahu di baytul maqdis mooy Jérusalem nga xamante ne saayir bi sax mi ngi wax wa taqaddamta li salatin fa sallaw kulluhum muqtasadin wa antal imaamu su ko defee ñoom ñëpp jiite na leen fekk ne moom mooy moom mooy imam bi bokk na ci xasaa is yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran bi nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala jox na ko nga xamante ne mbooleem xeetu téere yu fi jiitu woon yëpp yàlla da ko jël ba mbësal ko ci biir alquran jël alquran bu mag boobu jox ko yonent yàlla muhammad ku dul yonent bi amuloo téere bi di alquran bokk na ci xasaa is Eh, sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran bi yàlla subhanahu wa taala jox ko ko doon na téere boo xam ne du sappi doon na téere boo xam ne du changé doon na téere boo xamante ne jamono mënta ñëw ba folli ko moom téere bi la ñuy di ko continuer di ko dundee di ko doxal di ko attiwoo ba illa yawmil qiyaama bokk na ca xasaa'is yi nga xam ne yàlla jagleel na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu utiyal kitaaba wa huwa ummiyun la yaqra wala yaktub yàlla jox na ko màggaayu téere bi di alquranul karim te yenent bi doonul ko jàng doonul koo xamante ne ku mën a liir la moom sang bi boo ko bindal bindalaan turam sax du ko mën a liir kon ummi yu la ummi yu mooy ku jàngul kuñ joxeñ baaraam nag ne la ummi yu nga ku dul yenent bi yow dañ la xas waaye bi dee ci yenent bi kooku tagg la kon su ko defee yëpp ay xasaa is la yoo xam ne ku dul ti yàlla muhammad yàlla subhanahu wa taala jagleelu la ko bokk na ci xasaa is yi moom téeréem bii di alquranul karim am na naasix am na mansuux boo ko bëggee dégg nag mooy am na ci aaya yoo xam ne mi ngi ci téere bi di alquran te aaya yooyu euh, luwaa ba dañ ko folli am na ci aaya yoo xamante ni mi ngi ci alquran te luwaa bi dañ ko dañ ko folli dañ ko changé luwaa bi doxatut kon su ko defee lool mooy naasix ak mansuux soo ko bëggee dégg ci gàttaayam bokk na ci xasaayis yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla muhammad mooy yàlla def ko mu mu doon koo xam ne mooy mujj yonent yi nga xamante ne à part moom yenent bi yenentu dootul ñëw gannaawam lii bokk na ci xasaais yi nga xam ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xasaais yi mooy yenent bi yàlla jox na ko sariya boo xamante ne moo ñëw folli mbooleem xeetu sariya yu fi mosoon a jaar yàlla jox na ko sariya boo xamante ni moo ñëw gën a leer sariya yu fi mos a jaar yàlla jox na ko sariya boo xam ne moo ñëw gën a mandu sariya yu fi gën a jaar kon su ko defee lii bokk na ci xasaay si nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala defal na ko ay wa suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xasa isi moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox na ko njeexantalu suuratu baqara mooy amana rasul waaye mi ngi ko ko joxee ci ron aras kon loolu bokk na ci xasa isam yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xasa isi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy umumu daawatuhu li naasi kaafatan mooy mbooleem yonent bu yàlla ma sa yónni am na fu sax woote yam am na fu sa woote yegg am na fu sax woote yeggut wa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, umuma daawatuhu linnaasi kaafatan mooy dafa doon koo xam ne woote wala mission dafa ñëw matal mboolem goxu osomaan mboolem goxu suuf moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam ku moom rek am na fu sa mission yegg am na fu mu yeggut waaye it yàlla muhammad la mission yegg mboolem gox kon su ko defee loolu bokk na ci xasaayis yi nga xamante ne yàlla jëgleel na ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca xasaa isam yi moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent bu yàlla mos a yónni rek say nit ñu la topp am na ñu gëm am na ñu gëmut néew nañu waaye yonent yàlla muhammad mooy jëmm ji nga xam ne bu mu ñëwee bokk na ci jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko ko mooy monde entier ñëpp kenn réeré wut ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw bokk na ca xasaayis yi nga xam ne yàlla jagleel na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla jéggal na ko bàkkaar yu njëkk eh, ak yu mbujj annahu gafara lahu ma taqaddama min dani wa ma taaqar te boobu yonent yàlla Muhammad mi ngi dund ku dul bi laa wax amuloo amuloo amuloo yaakaar ci sa bopp ne yàlla nangul na la amuloo yaakaar ci sa bopp ne yàlla jéggal na la waaye yonent yàlla Muhammad rek moo jot kàddu borom bi yàlla ne ko jéggal naa la sa bàkkaar fekk boobu mu ngi ci kaw suuf di dund ku dul yonent bi amuloo lii kon yooyu bokk na ci xasaayis mooy jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko yonent bi mooy an allaha aataahu naharal kawsar yàlla jox na ko dex gu ñuy wax kawsar dex googu nag moom la ñuy wax ñu ne moo gën a weex meew moo gën a neex lem moo gën a saf sukar kaas nga xamante ne moom lañ koy naane moo gën a moo gën a taaru bi di waa wasaman su ko defee nag dex googu yàlla ngi ko prépareel xeetu yonent yàlla muhammad waaye ñi nga xam ne fexe woon nañ ba tënku ci digalam waaye fexe woon nañ ba bàyyi ay tereem ndax yonent bi wax na ci benn xaddis ma ne mbindeef yëpp danañ dugg aljana ba mu des ko bañ ñu ne ko yaa rasulallah kan moo kan moo dof di bañ a dugg aljana mu ne ku ma topp dugg aljana ku mooy samay ndigle dugg safara kon su ko defee yàlla booleel na ko ci jagle yi nga xam ne màgg na mooy yàlla jox gi ko jox géej gu ñuy wax kawsar bokku na ci jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana la amadahu bil malaikati fi gazwatihi fi gazawatihi yàlla léegoo léeg yent yàlla muhammad am ay xare yu mu dem daje kàccoor yi muy yéeféer yi muy yi ba nga xamante ne yéeféer yi bëgg nañoo not yenente bi wala nitu yenente bi yàlla yebal ay malaayika ñu wàcc ñëw bokk ci xare bi ngir participer ngir yent yàlla muhammad am ndam ci kaw yéeféer lii bokk na ca jagle yi xam ne yàlla jagleel na ko ko kudul moom yenent yàlla muhammad beneen yonent amu ko bokk na ca euh, xasaïs mooy jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla Muhammad mooy i'taa'uhu maqaamal mahmud wa hiya safaatul uzma li bat il xisaab mooy yàlla jox na ko benn cadeau wala benn grade boo xamante ne moom la ñu tuddee maqaamal mahmud nga xamante ne des fois bu ñu noddee ba pare da yow allahuma rabba hadihi daawati taama wa salatu qaima ati sayidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajata rafiata wa bas allahuma maqaaman mahmud alladi waatahu innaka la tuxlifu lmiad su ko defee maqaama boobu léegi neen bu ñu noddee ba pare dañoo bëgg nga koy ñaan ngir yàlla jàppandalal ko ngir yàlla yombalal ko ngir yàlla barkeelal ko loxo bu muy tegee te muy yàlla muhammad ndax bu wi kenn duñu ci ëppale kon bokk na Euh, xasaa is yi nga xam ne yàlla jagleen nu kinti yàlla Muhammad mooy maqaama boobu ñuy wax maqaamal mahmud bokk na ci xasaa is nga xam ne yàlla jagleel na ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom keroog yowmal xiyaam moom la ñuy njëkk a euh, moom la njëkk a daj ji bàmmeelam mu daal di génn su ko defee ci lay fëgg Aboubacarin ci lay fëgg Amar ci lay fëgg Ousmane ci lay fëgg Ali ñoom ñeenti ñii nag buñ ne pëlmét ci seen bàmmeel ci la ñenn ñi door a am audacité génn ci seen i bàmmeel waaye inti Muhammad mooy ku yàlla mujjee yónni te keroog yowmal xiyam moom la ñuy njëkk a xar mu génn kon lii xasaa is la bu yàlla jagleel yeneen ti bi kudul moom yàlla jagleelu la ko bokk na ci xasaa is yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala jagleel na ko suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy annahu yuati liwaul hamdi yowm alqiyama mooy drapeau sant yàlla keroog ki loxo yonent yàlla muhammad la ko yàlla di teg keroog yowm alqiyama ku dul yonent yàlla muhammad amuloo audacité amuloo grade amuloo maqama amuloo cëru téye drapeau bi di liwaul hamdi kon li bokk na ci xasaay yi nga xam ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xasaïs mooy jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu awalu man yadxulul janna mooy ki njëkk a dugg aljanna te mboolem cent vingt quatre mille yeneen yi ñoo fi jiitu yàlla muhammad waaye keroog yowmal xiyaam moom la yàlla di jox ndigal muy ki njëkk a dugg aljanna xeetamit ñooy njëkk a dugg yeneen xeet yi ci biir aljanna kon loolu garaat la kon loolu kasa is la boo xam ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi Muhammad ku dul sang bi amuloo yii la jagle bokk na ca xasaa is mooy jag li nga xam ne yàlla jagleel na ko ca suñu sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy julli ki jàkka yenent bi dana wécc ci junnee julli ci jàkka judul jàkka yenent bi ba mu des masjidul haram mooy mooy ci Kaaba ga ba des foofu su ko defee kon lii bokk na ci xasaa isi bokk na ci xasaa isi mooy dajjal mu ñuy wax nga xamante ne benn bët laam nga xamante ne bu ñëwee ku yàq jamono jël nga xam ne bu ñëwee day nasaxal pas-pasu jaamu yàlla yi nga xamante ne bu ñëwee day fexe sànq sa gëm yàlla nga xamante ne bu ñëwee day fexe tayal loola ci topp yàlla dajjal boobu lañuy wax ne moom amul audacité amul garaat amul daraja amul pexe pour dugg ci madinatul munawwara bi nga xamante ne fa tabarakallahu mooy dëkk yinti yàlla muhammad bokk na ca xasaa isi mooy jagle gi yàlla jagleel ñi ci yàlla muhammad mooy mboolem feebar boo dégg ne day walle wala day day day day day day troxal abu askan mooy feebar boobu di dugg madinatul munawwara yàlla da ko fa intirde ngir lan ngir sagal ngir lan ngir teral ngir lan ngir màggal yinti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca xasaa is yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla muhammad mooy mujjëg jamono mooy buñ demee bañ ne mujjëg jamono jot na mooy ngëm yàlla yàlla da koy récupérer fexe koo ma madinatul war nga xamante ne ngëm day delluwaat ci loxo ku mu jugee ko woon te mooy loxo yonent yàlla muhammad bokk na ci kasa isam yi bokk na ci xasaa is yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla muhammad mooy yonent yàlla muhammad mooy daan na wax ma ne euh, maa bay na bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna sama diggante nekk ak sama minbar bi mu ne rawdatun jardin la min riyadil janna ci jardin wa aljanna yi kon lii xasaayis la boo xam ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla Muhammad ku dul yonent yàlla Muhammad amuloo xasaayis yi bokk na ca xasaayis yi nga xam ne yàlla jagleel na ko yonent bi mooy min baram bi fu mu daan taxaw di xutba di wax jaamu yàlla yi foofee nekkate ci ci déggu kaw sara la bokk kon su ko defee lii xasaayis la boo xam ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla Muhammad bokk na ca euh, xasaayis yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko ba tey suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy moo gën a tedd lu yàlla bindi moom yenent bi ci kaw suuf ak ci kaw asamaan ak fu mën a doon moom yenent bi mooy ku gën ci lu yàlla bind ñun ñëpp yàlla ngi ñu amee ci yàllaa ngi ñu amal ci amug Moustapha ci amug Moustapha ci la ñu amee li ji daan wax nee na euh, Euh, Moustapha moo tax ñu ne xew baytala xew bu duloon ak Moustapha duñ ne xew baytala xew kon fa tabarakallahu yooyu ay xasaïs la ay jagle la ay garaat la yoo xam ne yàlla ngi koo jagleel suñu sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xasaïs yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla Muhammad mooy sahaaba yi nga xam ne ñoo ko daroon di ko dimbale ci mission bi di ko dimbale ci ci ci ci daawa bi mooy ñoom ñoo gën ku dul ñoom wali yu bu mën a doon nag wali yu bu mën a doon Cheikh Tidiane yi dañ koo laaj ne ko un dafa toog di wax xiiwal ak teraanga ak garaat ak maqaama yu ko yàlla subhanahu wa taala defal ngir santee ko yàlla benn taalibeem ne ko Cheikh Tidiane ni ma déggee ngay wax fa mal nii daal da nga ëpp saxaaba yi garaat Cheikh Tidiane dafa daw làqu tëju ci biir nekk ñetti fan génn ne ana ku doon wax wax ñu ñu ne ko ngi ne mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko ñun nitu yàlla yi suñu may ak mayu saxaaba yi boo koy xiima dafa mal ni ñun ay sànq lañ yuy dox lañ ci kaw suuf ñoom saxaaba yi dafa mal ni ay picc yuy naaw ci kaw mais picc buy naw ak sànqalañ buy dox bu gën a gaaw buñ nax suñu bopp kon mag ñi lu ñu baax baax baax baax baax nangu nañ ne dañoo baax muy maam borom Touba muy alaaji Malick alaaji Abdoulaye Niass mboolem kànkam yi ñu am nii ñu siiw ak ñi siiwut ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk tolloo ci catu benn loxo saxaaba saxaaba yi ñoo leen gën ci lu nëbb ñoo leen gën ci lu feeñ kon soo ko defee loolu nañ ko dugal ci suñu bopp yi bàyyi ko xel kon yonent yàlla Muhammad ay saxaabaam mooy ay àndandooram ñi ko daan dimbale ci mission bi ñoo gën ñu dul ñoom bokk na ca xasaa yi nga xam ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla yàlla dajaleel na ko compléteel na ko mbooleem xeetu wax yu njëkk mu fii bàyyee ko amul lenn loo xamante ne nee nañ lii de fàtte nañ ko wax yenent bi wala lii de yenent yàlla Muhammad war nañ ko koo jox joxañ ko ko déedéet mission lu ñuy wax mission bi mat na ci la yàlla subhanahu wa taala door ko fee jëlee ci kaw suuf kon loolu xasaayis la boo xamante ne yàlla defaloon na ko ko bokk na ci xasaais yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy moom kenn kott moom yenent bi moo ñëw leeralal ñu ci mbiram jal lu ñu beneen yenent du leeralal moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xasaais yi nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala jagleel na ko ko mooy dëkk bi nga xam ne fa la tëdd mooy madinatul munawwara moo gën mboolem xeetu suuf yi moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca xasaais yi nga xam ne yàlla jagleel na ko suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kawnuhu rahmatan lil alamin xatal kufaar mooy nekk gu mu nekk moom yenent bi jëmmi yërmandeeg borom bi waaye nekkul ko ci jullit ñi kase rek mais da koo nekk sax ba ci ñu gëmut yàlla ñi gëmut yàlla sax yërmandeeg yenent bi fale ni làmbu kon su ko defee lu xasaais la boo xam ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla Muhammad ku dul yonent yàlla Muhammad yalla jagleel lool bokk na ca xasaais yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko yonent bi muy yërmande googu lu la koy xamal mooy dañ daan ko laal dañ daan ko tooñ dañ daan ko dóor dañ daan ko gaañ ba deret bi di di di di rogalaat yonent yàlla Muhammad jël loxo ba di di di di di raay deret bi nan allahumma ixfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yow yàlla jéggal leen dañoo xamul rek moo tax ñuy def lii waaye bu ñu xamoon duñ def lii keneen ku dul yonent yàlla muhammad laa ne say nit buñ la mosee laal tuuti rek sa xol yëkkatiku na yaa ngi commencé taal loxo di leen ñaanal yàlla ak alkande bam mu des yonent yàlla ku dul yonent bi rek ci yonent yu fi jiitu woon ñaanal nañ seen i nit ay alkande ay toroxtaande ay xeetu mbugal ay xeetu xéwal yuy wàcc ci kaw seen i askan wala ci kaw ci kaw i xeet waaye nit yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeetam def nañ ko lu ne daan na def discours ay yéeféer ay xale ñu ñëw ne leen foo leen yuuxu leen ngir discours yi yàlla Muhammad bu mu jàll daan na wax ñu ne ko fenkan nga daan wax ñu ne ko njabarkan nga daan na wax ñu koy kokkali di ko gaaruwaale di ko sànni ay tarak mu ngoog mu ngoog moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp def nañ ko ko ci xeetu soxor waaye teewul daan na taxaw rek naan allahuma ixfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yow yàlla jéggal leen danoo xamoon moo tax ñuy doxali nii buñ xamoon dañ doxali nii kon loolu lu la koy leeralal mooy dafa doon jëmmi yërmande borom bi daan wax ma ne ana rahmatul mihdaat may kadoog yërmande bu leen yàlla subhanahu wa taala jagleel bokk na ca xasaais yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko ko mooy yàlla subhanahu wa taala du sàllalu yenent bi benn yoon ci turam ooye yent yàlla ooye yenent bi muhammad déedéet kon loolu xasaais la boo xamante ne yàlla jagleel na ko ngir teral ko ngir teddal ko bokk na ca xasaais yi nga xamante ne yàlla defal na ko ko mooy tudd guñ tudd guñ ko tuddee muhammad kon ñun sax ñu ngi ciy jaarale sant ci yàlla waaye sant su suñuy wéyjur ngir ñoom ñu demee am njaboot ci biir njaboot gi ñu choisir ñu ci tànn ñu ci tuddee ñu yonent yàlla Muhammad direct wax dëgg yàlla pay boobu ñun amee luñ leen pay amee luñ leen jukkal amee lu luñ leen sant boo xamante ne war nañ leen ko mën a jox ba yëg na jox nañ leen dayoog sant kon yonent yàlla Muhammad bokk na ci teraanga yi ko yàlla defal tuddi guñ ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca xasaa'is yi nga xamante ne yàlla jagleel na ko yonent yàlla Muhammad mooy xamal gi ko xamal mbirëb xaybu xaybu mooy lu faddu lu fàdd loo xamante ne des fois nit wax ci mu ñëw sax am mais ni mu amee dana wuteeg nu mu ko waxee woon waaye yonent yàlla Muhammad rek mooy sell benn mi def mi nga xam ne wàllu xëy bu da ciy wax loo xamante ne fii ba ay siècle siècle suñ kanam am na lu yonent yàlla Muhammad waxoon te bu ñëwee ni mu ko waxee woon noonu lay amee virgule du ci dollee ko virgule du ci wàññeeku kon kooku fa tabarakallahu ay xasaayis la yoo xam ne yàlla jagleel na ko yonent bi bokk na ca xasaayis mooy jagle yi ne ba tey yàlla jagleel na ko suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy araamal bu mu araamal sëyeeg soxnaam gannaaw bu mu fi jugee ko yonent yàlla muhammad jugee ko na fi dem ci hayatul barzaqiya waaye soxna yu fi bàyyee woon dund nañ ba nuñ fiy jugee koo ñoom it kenn takkaatul leen parce que lu tax loolu garante la bu ko yàlla subhanahu wa taala defaral te ñoom ñooy ndey jullit ñi bi bokk na ca xasaay si nga xamante ne yàlla jagleel na ko yént yàlla muhammad mooy moom la yàlla may mu mën a gis aljana euh, nu mu mel ak ci euh, taaraayam ak ci xéewalam ak ci teraangam moom la yàlla may mu mën a gis safara ak mbugalam ak ay gàllankooram ci jamono ju muy dund bokk na ci xasaay si nga xamante ne yàlla defal na ko ko mooy yeneen bi bu taxawaan di julli ni muy gisee ci kanamam noonu lay gisee ci gannaawam keneen ku fi amoon maqaamam boobu dañ lay tam la yow bi dëmm nga waaye yonent bi sallallahu wa sallam rek sel la yàlla may muy xool ci kanamam di gis ci gannaawam daan na ba bëgg a kaabar mu ne yow diw defaral sàppe bi diw sa tànk na tappoog tànk nang diw sa mbagg na dagaw mbagg nanga loolee ku ko yàlla mayoon beneen kilifa laa ne dañ lay tam hii diw dëmb la du ma julliti si jumaan kon sang bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay garaat am na ay maqaama am na ay xasaais yoo xam ne yàlla jagleel na ko ko kudul moom fa tabarakallahu amuloo la xasaais bokk na ci yàlla jagleel na sang bi sallallahu alayhi wa sallam jawaamiul kalim xeetu mooy yi xeetu langage yi xeetu lakk yi moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da ko koo peegaloon mu dégg ko léegoo léeg nga dégg kilifa bu mokkal lang yi dégg wax yi déggul wax yi dégg wax yi dégg wax yi yenente bi xataa ba ci waxu picc sax yàlla subhanahu wa taala fa ko ko déggaloon xataa ba ci sàbbalu melentaan yi wëñ yi njanaaw yi njaay àll yi benn bu ci nekk li muy wax yàlla subhanahu wa taala fa ko ko déggaloo woon parce que yàlla dafa daf ne ko dama lay yónni li kaafatil xalq ci mbooleem mbindeef mbindeef yi nag duwul nit kase nit mooy gën a tuuti ci lu yàlla binde kon am na mbindeef yoo xamante ne am na ci monde bu ñu nekk ñun sax xamuñ monde yooyu boo demee ci sey Seydi Hadji Malick inna la awalima aliha wa safiliha gis nga Maodo nee na awalim mooy monde yi nga dem ci benn téere mu ne yàlla am na euh, euh, fukki monde ak juróom juróom-ñett fukki monde ak juróom-ñett ñun monde bi ñu nekk benn la ci monde yooyu kon mu des fukki monde ak juróom-ñaar monde yooyu ñu fa dëkkee ñan la lanu ak ñoom lu ñuy dundee ak ñoom yan genre nit lañu ak ñoom yan genre genre mbindaa fun lañ kon ñoo ñëpp doon nañ ñoo xamante ne mission yonent yàlla Muhammad dafa yegg ci ñoom kon su ko defee yii daal mooy xasaayis yi nga xam ne yàlla jagle na ko suñu sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dul yonent bi nag xasaayis yi fa tabarakallahu amuñ ko sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla na yàlla dolli suñu cofeel ci yonent yàlla Muhammad weer wi weeru promotion la nañ ci profité ci joxe teraanga nañ ci ci istighfar nañ ci ci jàng alquran nañ ci ci salatu ala haddi yëleekin teela muhammad sallallahu alayhi bu mën a doon mën nga góorgóorlu def ko waaye ba mu des salaatu bi nga xam ne mooy salaatul fatihi mooy seefu salaatu ala nabi léegi li nga wax ko nag ci kalmaan yi mooy ibaadu yi seen xol doo mën a accepté loolu ñoom pour ñoom salaatu ibrahim mooy salaatu bi nga xam ne moo gën a fort salaatu yi waaye ci tegtal rek yàlla aadama la yàlla njëkk a kare ko te mbindeef yëpp ñu ngi soqee ko ci aadama te yenent yàlla aadama yenent yàlla muhammad mooy sangam te yenent yàlla muhammad mooy mujjëg yenent kon aadama nangu nañ ne mooy salaatu ibrahim waaye muhammad nangu nañ ne mooy salaatul fatihi kon salaatu yëpp buñ leen dajalee luñ bëri bëri bëri bëri luñ taaro taaru luñ rafet rafet luñ baax baax salaatul fatihi mooy ñëw doon seen sang kon salaatu bu waaye def baax na nga xaddi yële kinti yàlla muhammad waaye rawatina salaatul fatihi kon ñu ngi dénk góor di dénk jigéen di dénk mag di dénk ndaw nañ leen góorgóorlu profito ci weer wi ngel la fexe see def salaatu ak salaamu di ko xaddi yëleen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa seen bokk la seen soppe seen xarit muhammad tayib sise kaddu yi waroon a bëri a yaatu ndax duñu doyal bu ñu wax ci sang bi waaye temps bi daf ñoo xoj di wax rek ne in uridu islaax ma stata'tu wa ma tawfiqi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu